cinquante quatre virgule nangam pour cent ñoom ñoo ànd ci ndigalu ki nga xam ne moom mooy euh, le premier ministre Ousmane Sonko euh, daal fiy teg son excellence euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci jom ak fulla ci yaru gi ci teey bi ci tekk bi ci mat gi ci dal gi moom loole lépp mu ngi ko boole rek ànd ak ki nga xam ne mooy le premier ministre ñu leen di woowee ñu ci bari ci internet yi di leen woowee Ousseynou ak Assane ndax ñaar ñoo xam ne seen ay wax amul benn yoon waroo gisaguñu ko am na suuf am na déggoo ci sooy xool ci kaw ak ci lu mënti doon dafa am déggoo parce que euh, gis nañu bi nga xamee ni le premier ministre Ousmane Sonko dafa génn wax le président de la République dafa génn dëggalal ko ay waxam daal di koy appuyer ci li mu wax gis nañu ni ki démb tam adresse à la nation bi ni mu ko mayee gëdd ni mu ko yëkkatee ci kaw ay waxam waaye itam ni mu jàppee ne moom moo nekk ci dëgg ak fulla kon euh, ku mel ni Cheikh Yérim sekk ay waxam jarta dóor doom day tardeel boppam Cheikh Yérim Seck ci traitam la nekk waaye Cheikh Yérim Seck daanaka euh, du ñun lay nax ñun askanu Sénégal gi nga xam ne tar fatar ay ni ñun ñoo ko ci gëmul du askan bi nga xam ne ñu ci bari ci ñoom euh, ñoom ñooy wane seen bopp ci euh, li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi ñoom ñoo koy génne ñoo koy vaar ñoo koy wax ne li nga wax démb ak tey dara du ci dëgg ay moromu journalistam di génn tous les jours di ko wax ne Cheikh wata wat ku ci nekk di ko delloo ci place kon du Cheikh Yérim boobu tey jii moom moo xamul boppam moo tax mu ñëw ci kanamu askan wi di wax dañuy dem rek. ak ànd ak Serigne Fallou Gueye ci xarañtee fa mu daal di jëli li nga xam ne moom mooy vaar vaar comme ni ñu koy waxee ndax Cheikh Yérim Seck démb ci biir émission bi dafa toog nee na ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Pastef daf leen a joxoñ baaraam daan ne à chaque fois dañ koy bëgg a vaar mais buñ koy bëgg a vaar dañuy génn ay 10 secondes taqaleeg 5 secondes yeneen ak yeneen yoo xam ne dañ ko koy def alors que Cheikh Yérim Seck seetaan nañ say vidéo 10 minutes yoo xam ne say wax day taqaloo say wax kenn du ko daggat kenn du ko dogat kenn du ko taqale waaye li ngay wax la nit ta jàpp li ngay wax xam nañ nañu ne euh, tegoo ko fenn lu dul ci sa nafs bakkan tegoo ko fenn lu dul charme ñi nga bëgg ñu yónni la politiquement ca la nga tàmmoon ci diwaanu Afrique yow mi nga xam ne da nga tàmm woowee sa bopp <laughs> koo xam ne boroom xam-xam la ñu leen di woowee intellectuel yi nga xam ne seen xel dafa saay-saay intellectuel yi nga xam ne seenu réew da leen di soxla rawatina euh, continent ba ñu nekk waaye itam terewul lu lépp lu ñu yëkkati teg rek askan wi dañ ci teey xel askan wi seen xel du euh, nangu loolee kon dañuy boulevard bi dellu siwaat ak Serigne Fallou Gueye da xool affaire fa mu ba léegi li Ousmane Sonko waxoon lépp am na li président de la République waxoon lépp dara amu ci hmm. Ousmane Sonko dafa taxaw ni defuma déclaration de politique générale du fi mos a am ñu dem ba ci biir mu defaat beneen conférence de presse naan ñii di wax motion de censure motion de censure du am ñu dax mu ni le 12 ñii dinañ tal leneen danañ nekk leneen lu dul ay député bay taxaw di wax dañuy parce que xam nga ni ñuy def ñoom. gis nga bu ñu lay vaar man lañ la may vaare. mosoo gis Pastef ñu vaar ma lu ëpp lu ëpp dix secondes ci vaar bi cest à dañuy dagg benn phrase. Hmm. daggaat beneen phrase collé ko. Hmm. duñ ñu jël mukk même affaire bi ñuy wax ci affaire ay kenn du gagné premier tour vaar yi ñu def yëpp. du ñu jël sa raisonnement de. dañuy dagg fii dagg fi parce que xam na ni bu ñu jëlee sa raisonnement taf ko sa raisonnement day cohérent donc ñoo ko tey. Hmm. pour man destin Pastef nii la y a deux options soit ñoom ñu gagné combat bi ba Ousmane Sonko nekk candidat man li ma gëm à partir de information yi ma am ñaari hypothèse rek mën a am soit Pastef gagné combat bii ba Ousmane Sonko nekk candidat wala Pastef parti combat bi après Pastef tas. tas c'est aussi simple que ça. Ah, mënuñu am ñu am plan B non non non parce que xam nga lu tax amuñu. kenn ku mën a fédéré Pastef amul. Ah non man gisuma ko te parce que li may wax dama ko xam. ah tey bu Ousmane Sonko nii. ko nangu. non donc Pastef pour man destin. non non non may ma may ma may analyser woo. gëmal lu la ne. Amadou man li ma gën mooy ko. taal fatal ay que am na jox indice te bu génnee ci jeu bi. loolu suñu kanam la vaar vaar ci jom ak fulla vaar ngay amati foofu Cheikh Yérim Seck lii mooy sa ay vaar vaar yoo xam ne de trois voir euh, quatre minutes yoo xam ne dañu koy déglu sa ay wax amul anniversaire amul benn cohérence incohérence nga cay am euh, sa euh, li nga xam ne moom mooy ay wax amul benn ndëgërlaay zéro pour cent la ñu fay gis amul dara dara loo xam ne ci lu ñu mën a jàpp la parce que say wax li ñu koy waxee amul anniversaire mësuñu laa gis nga wax lii tey bu subaa mu doon loo xam ne lu ñu mën a teg gët la wala lu ñu mën a déglu ba gis ci lu ni mel na bokk na ci lu euh, lu ñu wax ñun kese mbokk internet li ñuy wax tamit bokk na ci lu ni mel waaye tam say mbokk journaliste ñoo xam ne euh, gënoo leen a jàng xam nañu école yi nga xam fa la ñu jaar def nañu lépp lu war ci wàllum journalisme te wallaay ñu ngi toog fi ñu toogoon ba tey jii euh, kenn neewu leen ngaay demba ndax ña ngay toog seen place di war a wax la ñuy war a wax di def la ñu war a def am li nga xam ne moom mooy crédibilité te journaliste li ñu koy waxee euh, crédibilité rek la am journaliste bu noppee wax ñu ne ko du dëgg boobu journaliste euh, dootul euh, koo xam ne ku ñuy war a déglu la ci kàddu ya muy wax journaliste bu demee ba xam ne lu mu jëf ñu ne du dëgg wala bu waxee ñu ne xëy na dafa am lu muy lu ko tax a wax wala dafa am ku tax mu génn day am loo xam ne nii moom nga war a sóoraale ci sa àdduna rawatina nag say mbokk journaliste gis nañu Walfadjri daal di génn euh, euh, daal di lay tontu ci ay mensonge yoo xam ne euh, sa vidéo mooy daw ci foofee nga xam ne moom mooy publication bi mu def ci post Facebook am boobee waaye itam mu tegal la teggi teg teggi ci ay mensonge yoo xam ne daanaka lu mën a jàpp ci sa ay wax la nga wax ni ki xam ne moom mooy le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bu yoon amoon rek li nga xam ne moom mooy li dal Ousmane Sonko moom moo koy dal ndaxte du nekk koo xam ne ku ñu war a jiital la ci yooyu la élection élection ba tax tey mu jël euh, li nga xam ne moom mooy raw gàddu gi daanaka euh, ci loolee nga wax lépp moom mi nga xam ne euh, moom mooy Ayoba Faye nee na la nga wax ci jurisprudence appliquée bu sonk bi nga toftal ci le président Bassirou Diomaye Faye daan ne bu ko bu fekkonte ne ci yoon rek la daanaka lu ne mel da koy dal ndax recours bi Amadou Ba dugaloon yow nga dem ba naan ñu bari bari ci ay mbokk waaye politique ñoom ñoo dugaloon recours lu ni mel du dëgg sa mbokk journaliste wet la ci te ñu bari ci internet internet yi noonu la àndee weddi la ci kon euh, gis nga noo ne boo wàccee sa ànd rek ànd woo dem fekk ca boroom mu toog di laax waaye itam euh, euh, soo deful la la war daanaka xale yi ñoom ñooy génn à chaque fois di la delloo ci sa ay kàddu di la fàttali say ay kàddu waaye itam di la fàttali rek yow yaay kan ci askan wi ak say wax ndax war naa tax ñu door sunuy doom wala déet te it comme ni ma ko waxee rek ay wax day am anniversaire ñun ñi nga xam ne tey ji ay journalistes sàmmonteeg sunu ay kàddu ba lu ñu wax ren bu dee ay analyse la ñu mën koo teg ci ay principe mën koo teg ci lu leer ba tax na bu ñu ci juumee sax daanaka euh, ñu bari bari dañu ciy jéggal parce que xam nañ ne bu amee ren du amaat euh, déwén te it du sunu mën-mën waaye yàlla sunu borom moo ñu jàppale waaye nekk ñu ñoo xam ne dañuy fowee sunum xel jàpp askan wi di leen désinformer comme pas possible ci lu euh, neex sunu bakkan ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy fas yéene faral di def am na ci loo xam ne euh, daanaka dalaa raw comme ni ma koy waxee waaye politique yi train bi raw waaye tam li nga xam ne moom mooy histoire politique bu Sénégal waroon ngaa bokk ci taarix bi ñi koy nettalee ak ñeneen waaye heure boo ko nettalee damm ca yàq wala nga damm ca lu ci bokkut euh, wala nga boole ci lu ci bokkut kon bokku nga ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy vaar ci Facebook bi ak euh, réseaux sociaux yi ñoom la ñuy génne à chaque fois seeni ay wax ne jarut a doom kon bàyyi ci xel bu baax a baax dañu ñëw ci beneen ci ay sujet euh, bu ñeel ba tey jii euh, euh, kenn koo xam ne nii aussi ci député yu assemblée nationale yi nga xam ne ñoom la ñi nga xam ne ñoom moom mooy le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati fañ nekkoon muy assemblée nationale bi ñu tas moom mi nga xam ne moom mooy Pape Djibril Fall mu bokkoon ci Pape Djibril Fall nag digganteem ak RTS yéen ñëpp internet yi daal di ngeen koy partagé fépp fu mënti doon ndaxte moom Pape Djibril Fall dafa rek daal di def a post Facebook naka noonee ci ay réseaux sociaux ñoom di génn di euh, euh, wax di euh, wax rek li nga xam ne moom moo doxoon ci digganteem ak RTS mu nekk nag ñaxtu boo xam ne da koo ñaxtu ndaxte nee na waa RTS dañu ko invité woon ni ki démb après journalu vingt heures bi fi nga xam ne moom moo di ca RTS bañ ko koy invité nag fekkagul ñu daal di le président de la république joxe dogal ci li nga xam ne moom mooy adresse à la nation bi mu fas yéene def moom Pape Djibril Fall il est qui il quoi il représente qui il représente quoi ba tax mu war a jël boppam daal di tolloole ak ki nga xam ne moom mooy euh, le chef suprême des armées euh, le président de la république le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xam ne adresse à la nation doon wax ak àdduna wërngal këpp rawatina askanu Sénégal gi nga xam ne ñoom ñoo ko faloon à cinquante quatre nangam pour cent ci jamono jooju yow nga am zéro virgule zéro nangam nangam pour cent dix ci kooku am ay plus de million et million de voix yoo xam ne daal la bali fas yow séenoo ko fenn yow ñu invité la ci ab euh, euh, journal télévisé euh, pour laaj la say xalaat loole dab ñi nga xam ne ñoom ñooy la télé nationale bi nga xam ne ñoom ñoo yayoo saxoo daal di wane adresse à la nation boobu ginnaaw gi la ko daal di yëgal ne ko lu président de la république day wax kon bu pa bu jeexee à vingt war nañu laa mën a invité euh, ngir ñu décrypter li nga xam ne moom mooy euh, adresse à la nation boobu moom mu lànk bañ daal di dem ci page Facebook am daal di fay bind di ñaxtu ak di euh, wax ne ñi nga xam ne ñoom ñooy RTS la ñu ko def ci camp contre camp bi nga xam ne émission boobee ñu ko doon invité après journal télévisé bi Euh, waa RTS tam ci seenuk mat ci seenuk mat dëgg dëgg dëgg euh, daal di génn defal ko ab tontu bu saf sàpp boo xam ne ligne ya mu bindoon moom mi nga xam ne moom mooy euh, Pape Djibril Fall yaakaar naa wanaat na ko ndaxte mbokk internet yi fa la ñu ko fekk bàcc bàccal ko ay commentaires yu saf sàpp sàpp sàpp ba mujj gi dañoo daal di dindi yenn ci commentaires yu bari yoo xam ne mbokk internet yi ñu ngi ko ko doon saax saaxee te bo donte ne boobu fekkul woon RTS génn li nga xam ne moom mooy tontoom jëme ci wàll bi te RTS mooy dañu ko ne après vingt une heures bu président de la république waxee ba pare mën nañu laa invité nga décrypter mu lànk bañ parce que dafa doon xëy na tollanteeg bopp boppam ak kii di euh, xëy na njiital réew mi te yow xam nga ne kooku su demee doo dem su toogee daanaka yow da ngay toog ba sori ko dànd ko parce que yemoo leen doo leen benn c'est le président de la république mais nag nit ki bu xamul boppam rek xëy na xamul boppam ci lu baree baree bari mais lépp luñ ci mën di wax dee daal mbokk internet yi daal di nañ koy partagé fépp foo xool daal di koy riigaat ci place am waxaat ko boppam xamalaat ko ki nga xam ne moom mooy moom te yaakaar naa comme ni ma koy waxee tous les gis nga doomu aadama dafa war a sóor booy wax say wax mu am cohérence waaye tam mu nekk loo xam ne bis bu ñu la tontoo doo am lu la naqari parce que xamal la ngay wax waaye bul xam looy luñ lay tontu yaakaar naa baat ak bi dox ci diggante Pape Djibril Fall ak ki nga nga xam ne moom mooy euh, euh, group bi di RTS 1 ña ko jiite ñëpp ak tontu bañu ko tontu yaakaar naa ne waat na Pape Djibril Fall ci àndam te it xamalaat na ko moom mooy kan exactement te it lii dina ko yee ci lu baree bari te Pape Djibril Fall genre buddu yi da tàmm di ko def dafa tàmm di def lu ni mel tàmm di génn di ñaxtu victimiser wu ci lu ni daal di wax loo xam ne nii euh, askanu Sénégal après bu ñu ko gisee seen loxo day dar seen gémmiñ te lu ni daal dafay bëgg soof bu baax a baax askanu Sénégal bokk na ci mbokk mbokk internet yu ci bari bari yoo xam ne ñoom ñoo boole commentaire yeeg publication yëpp tukkee ci ki nga xam ne moom mooy Pape Djibril Fall daal di ko koy euh, jagleel euh, ci li nga xam ne moom mooy ci biir euh, publication boobee nga xam ne jagleeloon na ko waa RTS donc euh, ku ko def rek daal di koy dégg te ki ko def nag xëy na ki ko dégg la bëgg waaye itam ku ko defit boo ko déggee ba pare buñ la tontoo da ngay daal di def wegam ndax boole wu ci waat wax amul dara lum ci tegaat lu dul boobu ba tey kenn déggaatu ko waaye itam dafa am lu ko doy sëkk soxla ndax moom Pape Djibril faal ci euh, treizième législature bi nga xam ne ci la duggee ci plus fort reste ci xam ne moom ci assemblée nationale ginnaaw at le président de la république daal koy euh, tas tasar moom Pape Djibril Fall fi mu nekk nii ñu bari ci internet yi dañ naan day uti liggéey euh, bu mënta fexe ba ñëwaat ci assemblée nationale gi nga xam ne moom jàpp na ne ci yàqinam ne dina ci ñëwaat parce gis nañ ko fan yi rek ci ci vidéo ci assemblée nationale